bokkul نبغاني نبغاني nag الإمام نخوان nga xaw اللي njaareem ومن الذي من فضل لا يمن من فضل غير ممنون أو القديم الذي سمعناه مسجد على الجبال ولم تقر به النون إن الأنفاق المقال من المدار الرفاق قال المختار مهمون لأن نجار ما غاب وقام قام من الكفر أكسن توا من الكفر جار سجال الأم دم الجه القرآن تنك وجم لأن كل رسول لا يرى كفر جار ما يبقى مبارك محمد دايما يوخ قديم مصطفى قوس الأمين لسان الحال تشهد للقديم من مثل الشيخ لن نسمع حديثا ولا في سالف ذر القديم كما لنا النقم مسكولك العلي الباب الموحد التي علي المرء هذا القديم من الكمال عجائبا ومقام فيه العيون تحار لم تسمع الاسماء قط بمثله والشبه لم تبذل الأجزار لأن na suñ لما lim lam moom yàlla ñëpp ci gëlëm عبد الرحمن العزيز العلي nopp mësu ñëpp la constitution ñëpp la laaj ñëpp la wax ne ñëpp doon la wax alaa yaa ibadallahi qumu li tashhadu wala takitanu ma taalamuuna fa taatadu saaltukumu billahi man wala aytumu ala rajulika shaykh yarfacu yadihi wa yaqulu ما إن كنتم ما إن ربكم مثله فقولكم حق وإلا تفندوا شهدت بأي شيء حق لم يكن سوى كريم أنا في الهيدل adduna laaj naa leen la wax adduna maa ngi leen di laaj nit ñëpp wax dëggum kenn nëbbu waaye waaye ngalla ndax mas ngeen a gis ko mel ne Amadou Bamba déedéet daan na boo leen maasee ci doon gisuñu wax ngeen dëgg ku ne naa ko fenn nga daan ci yàlla ne ku mel ne Bamba ba fi teg tànkam ci kaw suuf nii na wala ak nii daa juróom benn aaya ngi ci alxuraan yàlla nee na maa ko téel saa bopp benn bu ne Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul am na garaatam naa laaj meen la inna allaha ala kulli shay'in xadir yàlla nee na maa ko téel saa ci yàlla ba yàlla da ko sëriñ Abdou Xaadir liqaa rabbihi falyaamal amalan liggéeyal na ci yàlla ba am ci sëriñ Saliou Mbacke waaye li ma yàlla defal lan la lay déranger lan la lay naqaree yàlla ni lu ma bind ci yonent bi yonent bee ci gën mboolem yonent yi 124 mille nit ñu baax ñi dama cee gën nga bañ a nangu yàlla ni innal fadla bi yaddi ndax dafa wax yaddi nabi yaddi laa yutihi man yasha liggéey na ci ba yàlla may ko Cheikh Mouhamadul Fadal xam nga yaa ngi may dégg moom sëriñ rek lu waay di wax na doon sëriñ Touba lu waay wax lu dul sëriñ Touba bul ci tudd sëriñ bi amuñoo yow affaire waaye noo ngi fi rek ngir jëmmi sëriñ bi bëggaluñ kenn dara lu waay woote lum rëy rëy rëy demal ak moom foo xam bëgguñ ci tudd sëriñ Touba am nga coow tuuti rek di ko xam sëñ bi as ko fi dikk soo xam ne kenn xamul ndax day mat am day gàjjil day bëre ñoo ko fi ndax daa dëppoo seen programme ñu ñuy wax une dictature sanitaire parce que dafa am ay projet yu taxaw ay passeport sanitaire ay nangam yooyu dafa am c' est factuel kenn mënu ko dindi Serigne Mountakha a woote l' événement le seul et l'unique qui sera marqué en en deux mille vingt mooy màggalu Tuubaa gi moo billaahi dafa joxe ay garanti dafa ni dara du xew. lépp lu mës a def gis nga 200 millions yeeg lépp lu sëriñ Muntaxa mës a def te maslaa ko ak nguur gi da leen a yërëm ci seen ñàkk a xam lim doon ak lim man billaahi buñ ko bàyyi woon ak seen bopp dara du yëngu kon li ñuy ku ci wax ba du la na la lu dul keroog bisub layoo ba bu doon woto ki weesu layoo woto du ay taax bi